Sall la ma àndal Serigne Sall moo jara àndal université ñun ki nu àndal ñun ki nu àndal université ñun ki nu àndal yee ñun yaa jara àndal ak Serigne Sall lanu àndal yaa am ndigal yaa jara àndal yaa am ndigal yaa jara àndal mucc nanoo ñun ñi nga àndal mucc nanoo ñun ñi nga àndal Serigne Sall lanu àndal Serigne Sall ndigal moo jara àndal jërëjëf taalibe yi maa ngi leen di nuyu leen ah, waaw bi ma maa ngi sant bu baax maa sant bu baax ca moom day sant nañu sëriñ Saliou bu Mbacke bu baax a baax a baax moom daal na ngeen xam ni sant naa cant gox xam waaw yëg naa bu baax a baax a baax baax a baax mbiri Serigne ah, waaw moom day lii rek war a am ñun war na noo kañ sëriñ bi war nañ koo feccal war nañ koy waxtaane war nañ koo yuuxu fu nu toll lii rek lii rek a war a am wooy sëriñ Saaliw rek a nu war te wooy sëriñ Saaliw mooy war sëriñ Béthio te loolu ko neex man de wóor na ma ni tey yokkuwaat noonu waaw lii fi xew siyaaru tubaa université bii man de wóor na ma ne sëriñ bi mi ngi teew ci sunu biir saar bi nag daf ma neex bokk na ci heure bu ma dajeeg yéen sama xol day sedd dama yéegaat ab soññ ci sama digganteek sëriñ bi yéen dana am dana yëg dana yëg loo xam ni sëriñ bi rek a tax waaye nag da ngeen a am chance chance bi mooy sëriñ bi da leen a wutal jëwriñ ju ko mate waaw daan na wax tu daara marche à l'image de son jëwriñ jëwriñ Ousmane Fall ci yar bi ci tey ji ci bëggam sëriñ bi moom dafa xamul lu dul sëriñ bi sëñ bee ko yaral boppam yéen ñii ñëpp maa ngi fàttaliku siyaare ajjuma ya sëñ Béthio daawul attandiku ndax waa tubaa investi il s'est investi pour sa daara waaw barke Serigne Touba joxoon na leen ak jotam joxoon na leen yitte yëpp yi nga xam ne waroon na ci diggante taalibe akub sëriñ te fi ngay xame ni sëñ Béthio moo baax mooy waroon naa fekk muy xintewoo di wut ay taalibe yoo xam ne dañ koy jox ay millions waaw coono boobu mu daan sonn ci yéen boobu ay tuut tànk ngeen ne ci da ne ne étudiant ñii di ne ay nekk ay lycéen mu àndandoog yéen àndam bu rafet ba mu àndandoog yéen yar leen def ci yéen xam-xamu sëriñ bi ba ba ba ba ba waxtu wi mënuñu lu dul yéen mënu leen def lu dul tari lim leen jàng te ci loolu ngeen ne yéen mënu leen woon a def neneen yéen mënu leen woon woon ginnaaw sëñ Béthio c'est pas possible mënu a nekk dégg naa la ci sa kàddu Fall Ndar ci njalbeen nga ni bi bi bi bi bi xew-xew bi amee da ngeen a ñëw rek daal di yeesu mais mais yéen mu leen mën a def neneen ndax yéen jublub sëriñ bi ngeen te sëriñ bi dimbali na leen nag moo vous vous avez eu reçu une formation du cheikh yéen sëriñ bi leen dimbali ci boppam am na fum leen tollool fu mu leen teg def def ci xam-xam xam-xam buñ dee wax xam-xamu suñu borom yéen mënu leen woon a juum mukk mënu leen woon a moy sëriñ bi ngeen dox seen doxin wu rafet wi àndandoo ci seen biir yépp di ay kilifa ci wàllu saayir ngeen occuper ay post dans différentes euh, stations fu ci ne ci réew mi boo demee fekk leen fa bu ñu leen fekkoon ci seen i bureau danañ xam ne ay kilifa ngeen ngeen jënde lépp ak taal ne fi di di di di sonn ci ci ci sëriñ nekk ci sëriñ bi rek def ko seen yitte tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi man loolu ngeen ma neexe usmaan maa ngi lay sant bu baax ci nii nga àndee ak daara ci nargal leen ci liggéeyub sëriñ bi rek bu ma nee Ousmane liggéey bi kat am na nu mu demee damay gis ci moom sànn ak tiitaange waaw Ousmane mooy yaa bëgg sëriñ bi waaw lu ma ko wax rek mu daal di coy tab bi bi ma jógee gànnaar ni ko ah nag yi dañoo cher damaa obligé dellu si ndax damaa bëgg a jënd fii ay nag ci la daanaa di rëgataat mbooloom fexe ba indiwaat daq ay nag indiwaat fi gëléem yi moo ko jënd bâche bi gis ngeen ni mu demee te c'est des millions on a payé plus de 4 millions ci bâche bi lépp rek di pas-pas positif bu ngeen am loola nag wax dëgg yàlla mënta niil c'est pas possible faaw ngeen ngeen faaw sëriñ bi faaw sëriñ bi daje ak mënta ñàkk waaw di ngeen ko yëg ci saayir di ngeen ko yëg ci baat ndax yéen ne ci li mu bëgg man ak man man sant naa lu ngeen sant nag rek man sant naa lu ko ndax sëriñ bi bu tànnee mbooloo mu mel nii boole ak moom boole ak ñoom. man mii la cant gi waat ndax heure bii waroon naa fekk duma daje dajeek yéen te bu boobaa liggéey bi day sooxe rek te moom day mérité wul loolu de waaw te fa mu ne ma nga ni jàkk ci ñun mbir mi nag euh, sellal gi rek weesuwul liggéey baa ngi nii mooy sellal suñu digganteek moom je donne souvent en exemple sëriñ bi ci boppam bi mu fii ne te sëriñ Saliou woon ko ginaaw ci saayir soppib jataay ne ca ajjana ya gën a kawe booba la la la ko gën a dëñ ma gën a sellal diggante mbaang moom ci la gën a ci la gën a laxasaayu cofeelam ci sëriñ bi ca la gën a yokku gis ngeen ko ni mu defoon ci sëriñ Cheikh ànd ak moom na mu ànde woon ak moom siyaar bi gënoon a rëy ci siyaar yi Touba mooy siyaar bi sëñ Béthio organisé loon Serigne Cheikh loolu ba tey xel yi ak xol yi ñu ngi ci kooku dib murit kooku dara ñoru ko lu dul sëriñ Touba waaye njàngaleem ma rëccu leen yéen de yéen de njàngaleem sëñ Béthio yéen yéen moom maîtriser ngeen ko ndax noonee mu àndee woon ak sëriñ Saliou rek ngeen àndee moom ba tey jii ci sama jataay bii ngeen yor seen ngor gi yéen de waru leen sëriñ bi waru leen ko ginnaaw ànd ak moom liggéeyam bi fi mu toll tey bokk ngeen ci ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko yëkkati maa ngi leen di sant sama xol sedd na lool moom daal na ngeen xam ni am ngeen sama ngërëm waaw màggal gii moom maa ngi ñaan déwén seen seenu màggal déwén dàq dàq gu rek ci barkeb sëriñ Saliou sëriñ bi faj seeni aaj defal leen tawféex defal leen mucc liggéey bi barkeel ba lépp lu ngeen yéene rek ndax xam naa ni yéen de bu ngeen ko manee ma noppalu man de wóor na ma ni bu ngeen ko amee rek man sama sama aajo faj moo tax te maa ngi ñaan sëriñ bi faj seeni aajo te defal leen tawfeex barkeb sëriñ Sane. jërëjëf jërëjëf jërëjëf